mbokki àddina dal leen ak jàmm ci kii di Serigne Cheikh Ndiaye Njare moom Serigne Cheikh Ndiaye Njare di fajkatu aajo di listixaar di ñaan di faj mboolem tawat yi nga xam ni dafay dal doomu aadama moom Serigne Cheikh Ndiaye képp ku ko xamul itam dégg nga ko ngir lépp lu muy def mi ngi koy lay taayee alxuraanul karim moom Serigne Cheikh Ndiaye Njare dafa yëngu ci wàllu nopp rawatina ci diggante góor ak jigéen képp koo xam ni da ngay ay kayit tamu jafe la nga bëgg mu yomb lool jokkoo la kii di Serigne Cheikh Ndiaye Njare dafay faj rab ci doomu aadama ki ko sànni ni ñi sekkee déggu la jam ku bëgg ubbeekukaay yi moo ñu ci doy yor na itam cangaayu njare di cangaay lu am doole lool bari njariñ ci yaramu doomu aadama moom sëriñ Cheikh Ndiaye njare itam andi leen ndomba gi nga xam ni moom la ñu duppee ndombak njare di samp nit ci bërëbu liggéeyukaay yi ba du ko mënal dara di liggéey itam bayre ak kaaraange moom sëriñ Cheikh Ndiaye nii muy ñaane noonu lay faje ci gàncax ak ci ren ñeel mboolem tawat yi di dal doomu aadama yéen ñi amee ndoxum siti hémorroïde diabète asma ak néew kàttan ci wàllu sëy wala tële andi na leen garabu ngóor gi mu tuddee gaynde gu góor gi soxor gaaw efficace di la jox kàttan 100 pour cent ci sa biir néegu sëy yéen mbokki Sénégal yéen mbokki àddina jokkoo leen ak Serigne Cheikh Ndiaye Ndiare borom njariñ li ci 78 475 27 82 78 475 27 82 ak Serigne Cheikh Ndiaye Ndiare jaax la jeex na njaaxare tuxu na xel mu dal sañ ci dëkk ba faaw. ñu door revue de presse bi dooree ko est stade yéenekaay doomu Sénégal yi jongante ca Premier League ba la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa seen bëgg-bëgg nag moo di xañ Manchester City ngir Premier League bi ñu dëgmal ñu bañ ko jël bu dee Nicolas Jackson moom gan la ca Premier League boobe neuf bu bees tàq la fa nag ca Chelsea lay football li ko war moo di jëmbat ful la xamal wa Angleterre gépp ne leen moom neuf bu mën la muy def la bu dee Idrissa Gana Gueye ànd ak waa Everton ñoom da toq moo tee kon li ñu bëgg moo di doxal xañ waa Manchester City ngir ñu jël Premier League boobee bu dee Pape Matar Sarr moom li ko war moo di def exploit maanaam def mbir yu doy waar ndax ki koy tàggat ca Tottenham wóolu na ko lool match amical yi muy am mi ngi koy football kon li war doomu Sénégal bi moo di jëmbat fulla ca Premier League ba bu dee Moussa Niakhaté ak Cheikhou Kouyaté moom ñoo bokk benn bëgg-bëgg ñoo nga ca Nottingham Forest ñoom li ñu bëgg moo di maintien des ca Premier League ba muy ñaari doomu Sénégal yooyu nekk ca Nottingham Forest te Elimane Ndiaye it mi ngi ci journal bi moom nag mi ngi wax ay bëgg-bëggam nee na trophée individuel maanaam jël coupe boo xam ne benn jour képp la ñu koy jagleel comme ñu ne ballon d'or africain bi ilimaan Ndiaye moo ko jël wala Ligue 1 bi kat jeex na Iliman Ndiaye la ñu tànn mu doon ki ca gën a xarañ nee na loolee mi ngi ci xalaat te bëgg na koo gagné moom Iliman Ndiaye nee na nag foofee ca Marseille ñoom am nañu attaque bu wex xaat te saison bii ñu dëgmal jàpp na ni attaque gu Marseille kenn du ko attan ndax Ismaïla Sarr nga fa Aubameyang ak moom mi ba ca xam min xërit kon nag Marseille am nañu attaque bu weexaat loolee la Iliman Ndiaye xamle journal bi tamit ñëw na ci lig 1 bu Sénégal xam ngeen ne jeex na bërki démb waaye lig 1 boobee nag xam nañu ku ko jël bu yàgg muy Génération Foot waaye Génération Foot nag dañoo waabale ci Ligue bi dañu koo jël ba noppi nekk meilleure attaque nekkit meilleure défense kon lépp ñoom ñoo ko jël muy waa génération foot nekk ci dini Birame Ndaw ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay ñancoo Sadio Mané la journal bi fësal ca wu njëkk wa Sadio est obligé detre o top loole nag du samay kaddu kaddu jéen fay la ay jamono daan na football ca Arabie Saoudite nee na ñancoo Sadio Mané li ko war moo di balaa yàgg mu nekk o top di doxal foofe ca Arabie Saoudite jéen fay nag ay jamono daan na football foofee ca Arabie Saoudite nee na réewu Arabie Saoudite dañoo bëgg ko mën a football ba noppi gëm boppam nekk au top su fekkee loolee am na dañ lay bëgg lool waaye li ñuy bañ moo di nga dem foofee doo doxal kon ñancoo li ko war moo di nekk o top di doxal ci match yi kàddu yooyee nag Diène Faye moo ko yëkkati dénk ko ñancoo Sadio maane waaye Idrissa Gana Gueye it mi ngi ci journal bi club bu ñu naan Al Ahli foofee sax la Edouard Mendy nekk ñoom ñoo bëgg doomu Sénégal bii di Idrissa Gana Gueye laaj bi samp ma leen koy laaj ci commentaire yi moo di est-ce que Idrissa Gana Gueye dina dem ci réewu Arabie Saoudite fekki fa Al Ahli loolu mooy laaj bi journal bi samp yéen it ma leen koy laaj ci commentaire yi bu dee Al Ahli moom ñoo ngi càmbar ay mbiram bu ñu sukkandikoo ci record yéenekaay waaye journal bi tamit ñëw na ci doomu Sénégal bi am bërki démb ndam ca MMA ba di Oumar Kane ñu gën koo xam ci rëg-rëg moom nag mi ngi wax ci MMA boobe nee na li mu bëgg moo di gën a jox gëdd MMA bi jëmbat ci fulla ju mat sëkk loolee la rëg-rëg xamle ñu jugee Sénégal wëtali France fekk fa l'équipe équipe nationale France féminin ak bu Maroc la sournal bi fësal ca xët wu njëkk wa ci kanam tuuti ñooy jàkkaarloo bu 11h jotee mu soxal huitième de finale coupe du monde bi nga xam ne ñoo ngi koy amal jamono jii Maroc gii nag moo teewal dinduk Afrique gépp jamono jii ca coupe du monde ba kon nañu leen ñaanal ñu am ndam tey jii ci kaw France ñooy jàkkaarloo bu 11h jotee mu soxal huitième de finale waaye journal bi tamit ñëw ñëw na ci Neymar xamal na waa Paris ne leen moom dafa bëgg juge jugee ca club boobee journal bi nee na lii nag bokk na ci li tax doomu Brésil bi jël ndogal ndax daaw bi saison bi jeexee supporteru Paris yi dañoo dem këram di ko wax lu nekk nan ko yow doxaloo ci sunub club kon li gën ci ñun gën ci yow moo di nga jugee ci sunub club loolee bokk na ci li tax nag doomu Brésil bi jël ndogal ngir juge ca club boobe waaye journal bi tamit ñëw na ci balo gën AS Monaco da koo bëgg gone gi Arsenal moko ko moom France club bu ñuy wax Reims mu doxal foofee jamono ji waa AS Monaco ñoo ko bëgg waaye yemul ci AS Monaco képp ndax Inter it bëgg nañu ko ak club yu mag nekk ci Europe loolee la journal bi le ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Mohamed Salah la surnal bi fësal ca wu njëkk wa téye leen seenub xaalis bëgguma seenub xaalis loolee nag du samay kaddu kaddu asan wu Mohamed Salah la Mohamed Salah club bu mag nekk ca Arabie Saoudite ñu koy wax ak Ngolo Kanté ñoo ko bëgg tegal ko salaire bu baax waaye doomu Égypte bi nee na bëggul xaalisu waa Arabie Saoudite bëgg-bëgg bi mu am moo di toog ca Liverpool doxal gaa ñi dañ doon lam-laamee ne moom day jugee ca Liverpool waaye agent wam nee na saison bii ñuy dëgmal moom ca Liverpool lay football waaye Rami Abbas mi agent wam nee na Mohamed Salah demul ca Arabie Saoudite tey demu fa suba foofee ci Angleterre lay toog doxal kon waa Al Ittihad nañu téye seen xaalis loolee la agent wu Mohamed Salah xamal waa Al Ittihad bu ñoom Ngolo ak Karim Benzema naam salaire bi ñu ko tegal baax na lool ndax nee nañu ko soo ñëwee fii at mu nekk noppi nañu ngir jox la cent millions d'euros te nee ñu tamit lépp lu Liverpool laaj ñoom noppi nañu ngir def ko ca waaye agent wam nee na Mohamed Salah demul ca Arabie Saoudite ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay Neymar la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Neymar képp nag moo desoon ci trio bi nga xam nañu ko ginnaaw bi fa Lionel Messi jógee Kylian Mbappé xamal leen ne leen dafa bëgg a jógee ba nekk ci ay jafe-jafe démb la doomu Brésil bi xamal njiitu club boobe ne leen bëgg-bëgg bi mu am moo di jógee ca Paris kon Neymar képp moo desoon loole nag l'équipe nekk ca France moo ko xam xamle waa Marca yéenekaay jël ko becc ko ci seen xët wu njëkk waaye foofee ca Paris démb la ñu doon présenté Gonzalo Ramos waaye bi ñu koy présenté nag président wu pari tudd Nasser El Khelaïfi mi ngi doon gaaruwaale Kylian Mbappé ndax dafa wax gon solo Ramos ne ko yow de attaquant bu mel ni yow la ñu bëgg gone gu yaru amoo benn benke ñenke kon mi ngi doon gaaruwaale Kylian Mbappé bu dee club bi Kylian Mbappé bëgg a dem muy Real de Madrid seen président bi àndul woon ak ñoom ci voyage bi nga xam ne ñoo ngi ko doon amal ci réewu Amérique waaye bi ñu ñibbisee door entraînement yi démb la leen fekki ca Valdebebas foofee la waa Real de Madrid di entraîner ñaax leen xamal leen ne leen saison bi nag door na ndax samedi la ñu commencé kon li leen war xam ngeen ko jëmbat leen fulla loole le président Real de Madrid xamal gone yi nga xam ne Carlo Ancelotti moo leen di tàggat ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Kylian Mbappé la journal bi fësal ca wu njëkk wa kàddu gu mujj gi de doomu France bi moo ko yor jamono ji nag tekkaaralu kiliyan Mbappé moo tax ay mbiram yëngatuwul ndax Mbappé kat su waxoon waa Paris ne leen jaay leen ma ci tàng-tàng bi rek bu boobaa waa Real de Madrid mën nañoo yëngatu jéem a càmbar ay mbiram def offre jëlee ko ca Paris waaye ba léegi Kylian Mbappé waxagul waa Paris ne leen dama bëgg a jógee fii ci Paris li mu leen wax moo di sama contrat duma ma ko yokk waa pari kay ñoo jël seen ndogal ne ñoom bu ko Kylian Mbappé yokkut dañ koy jaay waaye Kylian Mbappé su waxoon dama bëgg a dem léegi rek waa Real mën na nañoo yëngatu kon kàddu gu mujj gi Kylian Mbappé moo ko yor journal bi tamit ñëw na ci Joao Félix moom nag waa Arabie Saoudite ñëw ko bëgg club bu ñu naan Al li ñu bëgg moo di abbu ko ca Atlético de Madrid waaye Atlético de Madrid abbu googee bëgguñu ko dégg nee na ñu daal soo leen ko bëggee ñëw leen ñu jaay leen ko waaye munuñ leen ko abal loolee surnal bi xam le ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport waa Barcelone rawatina ay ganam di Ikay Gundogan Oriol Romeu ba ca Inigo Martinez la journal bi fësal ca wu njëkk wa gamper bi de mooy doon coupe bu njëkk coupe boobee nag tey jii la ñu koy jongante amical la waaye day ànd ak trophée match boobee nag bu 18 heures jotee maanaam 6 heures ci réewu Sénégal ci lay door Tottenham la ñuy jàkkaar lool waaye nag du amee ca Camp naw ndax Camp naw googee kat waa Barcelone dañu koy deferaat waaye kat du ñu génn biir Barcelone googee ndax stade ba muy amee ma nga ca biir Barcelone stade Olympico la tudd foofee la match ba di amee Barcelone sax saison bii ñu nekk match yi muy am yëpp moo xam Liga des champions ak yeneen match yëpp foofee la ñu koy footballee tey jii nag supporters yu am nañu occasion bu rëy ngir gis gan yi gan yooyee bokk na ci Ilkay Gundogan Oriol Romeu ba ca Inigo Martinez tey jii mën naa am ñu football ca match boobee bu dee Joao Félix moom ay mbiram a ngi yëngu ndànk ngir mu jógee ca Atlético dem ca Barcelone doxal bu dee Bernardo Silva moom ay mbiram jamono jii dafa taxaw a ndeegum demul cëng dikkul mbay mbaylaar loole la sport xam le ñu jugee sport jël Mundo Deportivo ñetti gan yi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa répétition générale tey jii nag waa Barcelone la ñuy waaj waaj gu mujj ngir mën a dugg ci Liga e-sport bi trophée Gamper la ñuy football ca state Olympico la match boobee di amee Tottenham la ñuy jàkkaarlool bu 18h jotee waaye journal bi nee na leen match bu mitti na ngeen am tey jii ndax Tottenham du ñeexu ñebbe am nañu ay jour yu baax Pape Matar Sarr nga fa xawri ak yeneen gone yu mën la ñuy def kon li leen war moo di jëmbat fulla waaye gan yi tamit tey jii dinañu leen gis loolee la surnal bi xam xamle muy Gundogan Oriol Romeu ba ca Inigo Martinez bu dee Bernardo Silva moom mi ngi jox app waa Barcelone nee na leen may na leen benn jàpp ñaari fan. su fekkee defuñu jéego bu ama am solo amal offre bu baax jëmale ko ci ay mbiram moom dàqul waxtaan ak waa Manchester City yokk kontraam toog foofe ànd ak Pep Guardiola loole la Mundo Deportivo xamle ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Gabri Veiga la journal bi fësal ca xët wu njëkk waa Napoli nag ñoo ko bëgg moo tax journal bi nee na De Laurentiis de def na jéego bu ama am solo ndax def na trente millions d'euros ci doomu Espagne bi waaye club bi ko moom di Celta de Vigo dañoo gàntal xamle ne loolee ndaw na ci doomu Espagne bi waaye bu dee De Laurentiis moom amal na jéego bu ama am solo loole la surnal bi xamle waaye foofee ca Napoli seen gone gii di Zielinski nekk doomu Pologne club bu ñu naan Al Ahli ñoo ko bëgg waaye jamono ji moom Napoli amuñu jafe-jafe gone gi képp lañuy ñuy xaar doomu Pologne bi Burnley rek waa Napoli noppi nañu ngir jaay ko loolee la journal bi xamle bu dee Lukaku moom jege na lool ngir jógee Chelsea dem ca Juve doxal mbir moomee nag nii lay demee Chelsea day jox Lukaku waa Juve teg ca vingt-huit millions d'euros Juve jox leen doomu Serbi bii di vala Vlahovic te jamono jii daanaka lépp yemb na bu ñu sukkandikoo ci journal bi ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Dusan Vlahovic la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñëpp foofee ca yuufe loolee tax na sax supporteru yuufe yi nee nañu doomu serbi bi bu mu jógee ci sunub club ñun supporter yi bëgguñu lukaaku waaye bu dee Maximiliano Allegri moom Lukaku moo ko gënal jamono ji nag waxtaan bi sori na lool ngir ñaari club yi weccoo muy Chelsea ak yuufe waaye supporter yi moom bëgguñu lukaaku kuy gañe xeex boobe nag loolee ci sunu kanam la nekk bu dee waa Arabie Saoudite ñoom ñoo ngi baral jéego yi ngir xaatimal contrat Victor Osimhen Al Hilal ñoo ko bëgg contrat bi ñu ko tegal nag baax na lool ndax nee nañu ko soo fi ñëwee dinañu la xaatimal contrat wu juróomi at at mu nekk ñu jox la quarante millions d'euros loolee nag du xaalis bu ndaw jamono ji waa Napoli tiit nañu ca mbir moomee lool te Victor Osimhen dàqul dem ca réewu Arabie Saoudite soo moytuwul nag mën naa jógee ca Napoli loole la surnal bi xam xamle bu dee waa Inter moom li ñu bëgg moo di yokku contrat wu Inzaghi mi leen di tàggat daanaka lépp yemb na ngir doomu Italie bi yokku contrat